procureur Casamance day ah ma ne la wax na dee la solo ah, la ko wax ci ñi nga xam ne kon ñoom la ñuy laam-laamee ne maanaam nag ñoom ñoo yónni ak ña xam ne ñoom ñoo ko def accomplice waaw am nañu léegi leer ca ñoom ñoo ñee nañoo rey nit ma ne la procureur de la république ba day ak lien colonel Issa waaw bu commandant bi section de service gendarmerie nationale ma ne la wax nañu dee procureur Alioune Abdoulaye Sylla waaw nee na am song la woo xam ne day dañu ko préparé waajal ko teg ca rey nit colonel Issa day section recherche waaw nee ñi nga xam dañ leen a defeere jébal leen procureur day ay firnde yu leer ay preuve yu leer la am ca ñoom laa la wax procureur ba yemu ca ca quotidien ne déggoo leen ma de am song la goo xam day dañu koo waajal préparé ko te benn waaye def loolee waaye nag duñ tudd turam ñin déedéet ab réunion boo xam day amal nañu ko waaw te la lieutenant boobee demalee boppam ne kon xoolal ba nga xam kon foofee la ñu nit ña demal boppam sur quotidien man day maa leen di wax na turu lieutenant boobee ma ne la sanguinaire la de ku miin àll bi la lool moo rey fukki doomu aadama ak ñeenti nekkoon ca Casamance googee waa ji alaaji lay wuyoo alaaji maa la ko wax réew mi quotidien ne waa ji nga xam ne nag maanaam moom moo santaane kon rey gi day teg nañ ko loxo maa la ko wax libération yi ne waaye ay mbóot yu doy di ay révélation ah ci René Capitaine Bassène Milé ak Ampoix Bodian waaw enquête yi ne kay bi René Bassène waaw mbaa du moo santaane ñu rey doomu aadama yoo yee tollu day yoonu kuréelu FIPI Casamance yooyee la daal di kon jël nag di waa MFDC Jean Marie François bi ci yéene kaay gi ne enquête bi bu yeboo ñu laal ko fa président de la république laay waxal na jëlee enquête yi kon ci rébellu Casamance yooyee di waa MFDC ëppal la ëppal la o réew mi quotidien ne ñi nga xam ni kon maanaam ñoom ñoo rey ni di day waaw ci ndigalu waa MFDC la de kuréelu FIPI nekk ca diwaanu Casamance googe song a maa la ko wax a a tëddee teg tax la ilaha illallah la ilaha illallah bos fab li ne dëgg la ca booru jululu la mbir mu kon xewee jàppale nag ñett ci ay soxna day danoo yegg seen kaw violé leen daal di nangu nag seen ñetti million la ilaha illallah la ilaha illallah l'observateur ne xanaa xamoon ne song bi nga xam ne kon song nañ ko ca ba faa googee waaw ba daal di fay faat lu ci toloo fukki doomu aadama ak ñeent day même enquêteurs yi sax dañoo rëcc ah maa la ko waxee bu doomaa saane mi ah daan naan xeme ngir deewee ci biir gendarmerie ba bu ko defee nag ñu dugal état ba enquête ba tribunal ba du yomb de tribunalu Xalifa Sall ba day ah Sud Quotidien nee na xam ne ñoom ñooy layel maire Dakar day waaw nee ñu nañ leen dakal na topp bi nga xam ne day mooy ba ñu dooree at ba léegi ni la day ñin mënuñoo fexe ba joti suñu client bi di Khalifa Sall Touré ne képp koo kon ñam nga da ni ab complice waaw la ubbi na ga la de gis nga avance waaw mi ñam na ci na ci ci kon ci Papa ancien maire yi waaw lañ doon jël di ci def kon ay activité politique laal na ci ñam na ci Khalifa ay avocat Khalifa Sall day waaw lu jëm ci ak ak Khalifa Sall day jël football ko ko fële la wax ne ne man kay li may sax est-ce que président Amérique di Donald Trump mais est-ce que nekkul ci dëgg sax nag bu demee ba ñun suñu réew yi ce sont des pays de ar day taali wax day rafet de ko fi wax de la de yow aw réew moo xam procureur ba fale baa ne ci ginnaaw doyen des juges ba moom décret sax lañ ko fale fale ba fale baa nekk tamit ci ginnaaw assemblée nationale waaw lii lan la li mu ne dara waaye bëri bu kee mbaam la fa ñuy daane lee xalifa nekk ci dëgg lii dëgg kay enquête yéene kaay nee en tout cas de layal waaw ñu lañ ko nañ ko la day ni réew mi la ko yéene kaay ne président Macky Sall day woote na jàmm nag ku dem day jàmm la raaj c'est le feu waaye syndicaliste yi day nee nañ ko defal lu xees yow président na président def loo xam ne mën nañ daa teg baaraam duut ko ca lañ duut baaraam ci assemblée nationale ka enquête yéene kaay nee na Ousmane Sonko def waaw ma nga continuer ba léegi ni leen di tuumaal bureau assemblée nationale ne fukki million daal lanu ne moom la bëgg jox nag ab député bu ne mu wàllu murid première déclaration mi ngi doog a wax moom Serigne Mountakha Mbacké surtout Serigne Touba ba day ci kanamu jëwri nii ak kilifa yi ba ci porte parole ba Serigne Bass Abdou Khadre Mbacké Serigne Mountakha Mbacké nee na samay ginnaaw kilifa daal laa mës a topp rek ndigal rek ndigal rek te nekkum xalif miit du indi genn nu coppite ci sama dund xanaa xanaa gën a góorgóorlu liggéey ci ndigal liggéey cay Mbacké balay Serigne Mountakha Mbacké xamal ne taalibe yi moom xalif général ne leen yéen laa fi nekkal yéen laay liggéeyal man mi day maay seenu jëwri aw oh. la ilaha illallah vous êtes mes tuteurs je suis votre serviteur la ilaha illallah Mbacké balay si Serigne Mountakha ne ku dem ma dem ku demul ma barke Serigne Touba taluma leneen man Mbàkke lenn taluma ko te soxlawuma leneen lu dul ngërëm ak ñaanu Serigne Touba kese la ilaha illallah waxtaan wi nga xam ne ñu eh. toogoon ca waxtaan ba day tasaaroo nañ maar day daali waaw parce ak Abdoulaye Baldé ne Macky Sall la ñooñu di liggéeyal yaa jum wala maa jum waa Front National wax li libération yéene kaay wax doy waa ji nga xam ne nee na te du douanier juróom ñaari atu yàlla laa lay ni ne ma ngay faux douanier la laa ilaha illallah loolu it la ma sa gëm loo waa këram jabaram ak njabootam ba mu tàmbalee bëggante temps yi ak genn xale bu jigéen ab la kookoo ko daaneel de maar day taali waaye ba ñu defee l'enquête ba day waaw gendarmerie section recherche a mosuñoo gis ku tudd am di laay mbeng xaw ma am di laay ngom ca douane bee amu fa vox populi ne la juróom-ñaari atu yàlla mu ne douanier te mosu ba muy waaj a takk ñaareel nag la daanu <laughs> alaaji lii nag mooy tës dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax du ma ci commenté dama naa la alaaji tëjal